ngi noonu di dugg si guy gi dugg si na ci stade bi ñu ngi ko boot ndaysaan ama seen si ñoora ko boot liiru jaana ngi noonu le monument adama guy gi ngi noonu sol benn koppate bu weex adama borom bis waa ngi noonu guy gi hee guy gi mooy laaleeg rëg-rëg ndaysaan guy gi ngi noonu tey adama guy gi ndaysaan yëre wiise bu am karaw mag lañ ko defal xoolal gàllaaj bi liiru jaana ngay wax may leen mbër mi mu jàll ndeysaan guy gee ngi noonu ñu boot ko daa boot dañ koo boot ndeysaan ma nga boot adama guy gaa ngi noonu mooy dugg kii mooy dugg yàgg nañu ko gis ci làmb moom ak làmb ñoo ànd mbër saa su ne buy dugg si stade da ngay gis ñu muy àndal des fois mu ëpp CNG dagg. waaye bi dañ cee jël seen matuwaay. ndeysaan ndeysaan liiru wax li xew. non lii dafa ñaaw. non dafa ñaaw. barke Serigne Saliou Mbacké lii lépp li ma gis man tey jii li ma gis man dañoo foofu sa boy bi man leen boy bi la ñuy jàppale xanaa te waa Thiaroye ñoo ngi jaar ci porte bi du dugg du yoon ñu guy di ñëw ak ñi téye gàllaajam ñu leen téye te gis nga li ma def léegi man tamit ci biir ma ñëw fii ah. lañ leen wax pour ngeen jaar voilà ah, fii lañ leen wax pour ngeen jaar dañu ñëw naa ba ci cuun ma wax ak moom ñi wax ak mu ne garaawul ñëw leen ñu ñow ba fii ngeen gis ni mu def may ko nag mbër mi fii la bëgg a jaar may la ñu ñu jaar fii léegi ñu ñëw ba fii ñu bàyyi mbër mi téye ñenn ñi man ma dugg ba ci biir mbër mi dafa bëgg a jaar fii gars yi dindi barrière gis nga la fa xew. waaye am voilà te booy bi laa doon. maa bëgg a wax ni kumba am nday laa kumba am. man du ma yàq man du ma damay defar magum jëmm laa am na yoo xam dama ko def guy gi suma rakk la ñoo bokk géej a way nga deretu géej a way moo ma yëngal su ma ñëwee ba fii. waruñu ñu dem ci biir tumaa guy na fii la bëgg a jaar ñu dem di jaar fa booy bi dindi bare ñu jàpp booy bi di ko dóor di ko sëxat ma ñëw di atte du téye ñu jàpp ma bàyyi booy bi yóbbu ma waaye nag garaaw am solo man gars yi seen liggéey la ñuy def. xam ne xam ne mosoo yàq la. fekkee fu ñu yàq la. gàtt yi ñoom ñëpp samay xarit lan barki Sëriñ Salim waa xam ngeen ko lu ma ko jàngatee daa mel ni dafa am kumba am ndey at kumba amul ndey daa mel daa am kumba am ndey at kumba amul ndey man loolu laa gis waaye nag àdduna am solo arbitre bi sifflé na appliqué ak soq bu ndaw soq bu ndaw écurie Falaye Baldé la nekk appliqué mu ngi nekk écurie benn baraak ndaysaan fa la nekk moom appliqué raq soq la ndaysaan soq mu ndaw mooy raq soq appliqué soq ñu ngay xeex door mu daanu mbaa am appliqué ngiy door soq nga tibb na suuf soq bu ndaw tibb na suuf soq mu ndaw ngi dox ci koom soq bu ndaw moo la wan ginnaaw appliqué soq dóor na ko coup na soq dóoraat na appliqué ngi fayu ma ngay fayu appliqué soq combat bi fu muy mujj appliqué soq soq appliqué ndaysaan soq appliqué soq appliqué appliqué ngi dóor ci suuf mu ngi mos ay mos yu ndaw ci suuf Sokh appliqué Sokh appliqué Sokh appliqué Ndeysaan ñoom ñaare gi noonu Sokh appliqué Sokh gi jéem a ngemb waaye denga ji Sokh bi baax na Sokh appliqué Sokh appliqué ñoom ñaar ba tey ñu ngi jàppante waaye ku nekk ngi bëgg a def lu mu morom gisuma soq waaye lekkul naanut fi mu toll gisuma ko waaye xam naa ni fit baa ngay leen ndax sa rakk buy bëre pression lay doon yow mag bi ndeysaan ña ngay xeex ña ngay xeex plaqué na ko mbot ba est dina baax soq mbat na soq mbot na soq li mu def laa ilaha illallah soq daan na ko soq bu ndaw daan na appliqué ndeysaan soq daan na ee eh, raq soq bi daan na Alboury ngi noonu Alboury ngi noonu Cheikh Bamba général la àndal la saltige caacaay ma ngay léemu ma moom Cheikh Bamba général Alboury ngay joxe Cheikh Bamba ngay joxe Alboury ngay joxe ma ngay joxe moom saltige caacaay bi ndeysaan nee na ko gaaw da ciy boole dóor da ciy boole lu ne jox na ko ndeysaan saltige caajaay ba ma ngay joxe ma ngay tànn di jox nee na ko demal saltige caajaay ngay joxe ndaysaan alburee ngi noonu alburee ngi noonu hee alburi la saraxe la saraxe kenn bañu ko banaana ak pomme <laughs> ñëpp ko bëgg fur wi amul noonu moo xaalis ayam aa ah, am na ñoo xam du lekk fur wi de ndaysaan albure ngay saraxe ndaysaan saltige caajaay ah, jox na ma ndaysaan jox na ma Adama jox nañ ma pom Adama ndaysaan jox nañu ko jox nañ Adama sama xarit bi ndaysaan Adama def na ci poos bi saltige caajaay Cheikh Bamba général la moo ngemboon Alboury indi ko mu am ndam ndeysaan eh lamba gi ndeysaan ndeysaan Alboury Cheikh Baba Général yaa yaa baax ci man sama waa ji ba ngay joxe ndeysaan ah, jox na ma foofu waay ndeysaan jox na ma lu Diawara ma ngay saraxe moom it. ndeysaan. Cheikh Bamba tey noo ñëwee. noo na amul kii bu fekkee yarawul dañ koy dóor mu daanu. dóor mu daan incha allah bu fekkee yarawul bu fekkee yaroon nag ñu jàpp ko dal ko ndànk dem nii. bi ñëpp xam nañ ne ndaanaan la ci mbir. incha allah ubbi sa bët yi seetaan tuuti moo si des. numéro deux. kii ma ngemb de. oho. jili xamatoo ma wala lan la. xam naa la incha allah maa ko ngemb maa ko indi. Ah? ubbi sa bët yi seetaan tey mu da doon dof tey mu wér. tey wér tey. Ah, incha allah walaay tam ma diggante yàlla. sa diggante na. Adama guy gee noonu di dem di tuusi. Adama guy gee noonu. ndeysaan la grand guy gi Adama gars yi sam foo am jëlal

ndeysaan Joe Technique numéro 2 ak Alboury Joe Technique ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu ñoom ñaare ngi noonu Joe Joe war na ko ginnaaw kenn du moom Alboury toj na Joe Technique ak Alboury Alboury Joe Technique ñoom ñaari mbër yaa ngi noonu taw arbitre bi nee na Alboury fëggal sa suuf si fëggal sa suuf si Alboury Zootechnique ndaysaan Alboury Zootechnique Alboury Zootechnique Alboury Zootechnique Alboury Zootechnique ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar Alboury technique ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar commandant Thioune ñaari xale yaa ngi leewaatoo Alboury technique Alboury moo la féete ginnaaw Zo technique nga jàkkaarloo mooy féete càmmoñ Alboury technique Alboury technique ndaysaan ñu ngi leewaatoo ñoom ñaari xale yi Alboury technique Zo technique ngay bàkku Alboury ngay déglu pour la ci làmb stade bi ñëpp dañoo ci ëpp dañu koo soob ndax façon de communication moom zone technique ndaysaan waaye rëg-rëg a ngay yëngal ndaysaan zone technique ndaysaan zone technique Alboury Alboury ngi dox ci kawam ndànk mais Zo dafa nekk à l'aise ci combat bi Zo technique ma ngay njàpp ma ngay bàkku ma ngay wax lu ne arbitre bi mu ngi leen woo arbitre bi Zo est muy def du stratégie ci kombaa bi est-ce que ci làmb ji Zo technique Alboury bi ndaysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey Zo technique Alboury ndaysaan ñoom ñaar ngi lewaatoo zoo technique Alboury Alboury nag lu mu bëgg waaye zoo nga koy déglu rek Alboury ma sa tànk yi zoo si sa la jëm zoo ndaanaan la est-ce xeex dina am ci combat bi wala déet est-ce xeex dina am Alboury zoo technique daw la jëli ko waa du yomb day jeex wala déet zoo daa mënee loolu zoo daa mënee loolu Zoda mu ne loolu jël ci suuf jege na suuf waaye Alboury tëru na ko Zo fi mu jàpp baax na Zo Alboury Zo Alboury Alboury fàqat na ko yegg nañ saako yi Alboury Zo technique na ko sol na loxo càmmoñ ba ma ci suuf Alboury est-ce am na fi yoon Zo technique daa bëgg a jóg rokkas ci suuf Alboury a ngi ndeysaan Alboury ngi dóor Alboury ngi dóor Alboury ngi dóor ci suuf waaye Zo fu mu baax na Zo bu jàppee du bàyyi arbitre bi wooy na ko Ardo wala déet Ardo arbitre bi yore arbitre Ardo arbitre yóbbu na ko Ardo ndaysaan Alboury zoo technique Pape Sarr noo gisee ñaari xale yi Alboury ak zoo. waaw ah, bilaay yal na ko yàlla may ndam. mais yóbbu na zoo technique ardo na ar public bi jug leen. est jeexal làmb. loolu daanu ko de jàpp fu woor def lu wóor mooy daan kii parce que ay combat am yëpp dama ko seetaan ndaanaan la waaw yëfu dof dof lu yooyu muy def si la lay daanee daa xam loolu moo tax mu teey gérer combat bi mais tey dañ ko yab daal maa ngi ñaan yàlla may ko ndam. Pape Sarr mooy wax loolu borom rent DKR production journée bu mag bi dox ci diggante karakat Zarko Mbaye Gouy Gui dimanche bii di ñëw tey dimanche bi tey bu ñëwee maa ngi woo ñëpp stade Iba Mar Zarko Mbaye Gouy Gui dimanche bii di ñëw bii ñu jëm bii di tey bi bu dee yaa ngi ci dimanche ci Gouy Gui ak rek bu ñëwaatee maa ngi ciy woo ñëpp tey moo lay wan tey nañu ñëw xool Mbaye Gouy Gui ak Zarko nu ñuy def stade bi maa ngi ci woo amateur yëpp waaw jaajëf jërëjëf Pape Sarr moom mi nga xamante ne moo nekk ren DKR production moo leen du organiser journée bu mag dox ci diggante Mbaye Gouye Gui ak Zarko mu nekk journée boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar zoo technique dem na ci ardo boo ñëwaat arbitre bi àtte na ndaysaan xoolal zoo ñandu na ndaysaan moom zone technique zone Alboury Birame Penda Ndiémé ak zone technique ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Alboury technique Alboury zone technique Alboury Alboury technique Alboury moo la wan ginnaaw Zo Technique nga jàkkaar lool ñaari xale noonu Alboury jiital tànk càmmoñ Zo Technique jiital tànk ndeyjoor ndaysaan Zo Technique Kër Mbay Faal Alboury nekk sa njàmbur ñaari nekk bu waxee mu neex Zo bu waxee mu neex Alboury bu waxee mu neex waaye ñaari xale yi dañoo mën a bëre. ndeysaan Alboury Géotechnique. ma ngay cokkaas daw na jëlaat ko ci suuf daw na jëlaat ko. ndeysaan Géotechnique mbëru suuf la ci suuf lay bëree. Alboury da koo bëgg xeex. ma ngay dox ci ko am Géo ñëw na jàppaat na Géo li muy def du koo xam. mbëru suuf la. Pape Sarr waxoon na ma ko nee na ma bërëm bi yëpp ci suuf la Alboury sol na ko. waaye zoo lekk nga avance boo xam ne doo foo zoo technique numéro deux rek ngi ci suuf zoo si gina Alboury ngi dóor ndeysaan lu nar a xew Alboury ngi ci suuf zoo ngi na tekk rek di ko déglu zoo technique mu ngi na tekk rek di déglu Alboury lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan moo nar a xew Alboury zoo technique lan xew ñoom ñaar ba tey ndaysaan ñoom ñaar ba tey ndaysaan ñoom ñaar a noonu Alboury technique ñoom ñaar ba tey ña nga jàppante door ci suuf baa ngay waaj a yàgg ndeysaan Alboury combat lay bëre jox na cër kib muy bëre Zo Technique xam moo tax Zo ku ko joxul cër mën na laa daan Zo Technique nàcc na arbitre bi gisu ko nàcc na Zo Technique nàcc na arbitre bi xanaa gisu ko Zo na ma ngay nàcc Alboury ngi Alboury ngi dóor attewaat na arbitre bi zone technique demal ardo Ndeysaan par décision arbitrale da koo kaawo ñëwal teg rek gaay fusal fusal yaqal yaabil président ñëwal Alboury Alboury Alboury Alboury kaay yowal yóbbu ko yóbbu ko teg rotas cër cër rajo gis gis gis teg gis gis gis dar teg eh gis dar teg gis gis teg teg gis gis gis cër waaw waaw Alboury am na ndam Alboury daan na waaye Pape Sarr waxoon nga ma billaay wallaay tey rek oh ndeysaan Alboury wax waaye bëggoon naa ko am yaa bëre ñaata combat troisième combat bi laa bëre moo bëre maa bëre ak doomu kan bay Fall daan waaw daan ko. bi mooy sa ñaari combat bi mooy sama premier combat. sedd na de sedd du loolu sax waaw dama xaw a tuuti rek mais mooy loolu daal comme combat bi jeex na kay sant waaw. waaw ah, seeti samay morom rek ba dax ñoom ah. waaw. mbër yaay kan. waaw man Solar. mooy bëre. maa bëre Saamu Kaane léegi. Saamu Kaane waaw maa ko mu wàcc léegi. daanu kay xalangu. tax ma tardé lu neexul. waaw gis ngeen xalangu la dafa mu xalangu. loolu mooy xalangu. noonu la demee nag. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama cinquième combat maa ngi benn défaite la victoire benn défaite. daan maa kii moo ma daan Modou Feuille la. waxu Feuille la bi moo daan. waaw moo daan waaw waaw dal waaw. nekk si yoon nag jaay dañ ñëw ñu bëre. waaw waaw. Modou Feugeleu mooy loolu billaahi yow xam nu mu demee woon moo tax dal jàmm ñu ngi noonu ci cimikaayu guy gi. Ndeysaan ma nga teg ay ay bi mbiram. Ndeysaan xooloon mbuus bi mu yor moom guy gi. Ndeysaan guy gee ngi noonu. Ndeysaan. guy gee ngi noonu. ay ay perkaal yu weex la yor. ma ngay dem ci géew bi moom guy gi ma ngay dem ma ngay dem moom guy gi ma ngay dugg nee na may leen ko mu ñëw ma ngay dugg guy gi dem na ma ngay dox di dem hee la baaw baaba gi noonu hey doomu cana ba baa ngi noonu guy gee ngi noonu di dugg dugg na ah gaan da ngay sa soxla sa soxla tar rek gaan ah, laaj naa la sa waay mu ne ma xam nga da ngaa demoon xam nga vol moo paanoon ci kaw mais gars yi jënd nañ ko après boot guy gi ngeen dugg si ci làmb ma gisaat beneen guy gi lan la lu ngeen ko boot yéene ko ndam rek moo tax ma boot ko yéene ko ndam te yàlla rek tax waaw yéene ko ndam te yàlla rek tax te dama koy ñaanal ci barki maam Cheikh Fall ci barki sama wasila Cheikh Modou Ba Djidi Fall yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy dina yomb làmb la yëfu góor la ak lu mun tam dama ne man ndam laa koy ñaanal waaw lépp moom pare nañ pare nañ lépp waaw ma ne gyrosène bi fu ñu ko chargé ci avion bi fan lañ ko chargé parce que da nga paanoon. nga ñëw ci làmb ji parce que combat bi ñu ci bëri ci analysateur yi nee nañ combat kombaaw combat wu tay ma dee la ci guy gi da ngay confirmer loolu. waaw loolu wax la rek. loolu wax la rek bokkul ak jëf de. ñoom nañ wax seen xalaat. mais li xew yàlla noppi na bu yàgg. dèjà nit yi da ngay def sa sa sa sa li nga xamante ni moo la war après nga bàyyi yàlla def lu ko war. maanaam def na waaj nañ def nañ li ñu war dañuy ñaan yàlla suñu borom may ñu ndab te Reug Reug ah, arrangement mooy suñu arrangement mooy jàppante maa ngi wax lu garaaw nag. ah mais mooy suñu arrangement Gouye Gui lu mu jàpp lu fooram ah Reug ah, <laughs> Reug sant yàlla. Euh, Gouye Gui Reug bu neex. combat bu gaaw. gënu daanu mën waaw waaw. islam bu xeex lañ wax. jël ko prix rek daanu. prix rek la mooy avantage am tey ci làmb. ñëw bëre. jàpp bëre. xeex. teg bëre bi. nan lay xeexee. xeex xeex tey yosul dóor rek. dóoral ma dóor dóor rek. maa ngi dóor ta dóor dóor ma yàq ko. loolu moo war a loolu war ñoom ñaan ni nga leen gisee ci digg géew bi am na ku ci mystique jàpp. mystique moom mënu ma la jàpp. gannaaw ñu ngi dégg ndënd yi di fecc mënu ma gëm ne kenn mystique jàpp na ko. ñoom ñaar ñëpp gis nga ni la moral ba. si amu ci. expérience rek mooy gañ fi tey. fi. bëre baa ngi kon léegi expérience moo des ku ko cëpp la sa morom rek daan dem ni bi na solo. Ndoye. noo gisee làmb ji tey. ndeysaan As. As maa lay nuyu. maa lay fay. sant yàlla bu yéeral. gisee guy gi guy gi rek bu neex la wax dëgg yàlla komba suspense la combat amateur la te ni ma leen gisee ni ñoom ñaar ñëpp ci forme xam naa ne bëgg nañ làmb ji tamit mais yërëm naa ku juum. waaw ku juum rek yërëm naa la. tey ku juum daan. joxante cër ku nekk xam na li sa morom mën xam naa ne ku nekk tamit écrit bi mag moo la dar te ku nekk am nga conseiller mais daal yërëm naa ku ci juum. ok. daw na Aliou Mbengue noo gisee guy gi rek. guy gi ah. man de sama kel ma da dëgg yàlla gis naa ne tey moom tey kopp ñaan tey lamb du am ñaan mooy bëre tey. tey mooy bëre. tey ñaan mooy bëre. tey lamb du am maa la fi. Ah. Ah, tey ñaan mooy bëre. ku ci ëpp ñaan ñaanu ñaan baatin mooy waaw tey mooy bëre. lan moo indi ñaanu baatin ak beneen ñaan. non xaw ma baatin baatin moom man naa bàyyi ba dernier mois sax mu def xam nga jàpp mbër mystique dafa am ci làmb képp mu amee loo amee loo ko wax léegi mu ne ma gàllay amul ci làmb ma ne ko am na mu ne amul ma am combat ko wax yoo xam ne moom dafa andiwoon dafa andiwoon ko am na ñun ñi nga xam ne ñu ànd mbër di entraîné mbër xam ne ne gàllay am na gëm mbër mu gëmu gàllaaj mbër mu gëmu gàllaaj boo ñëwee si làmb ji bu làmb jeexee sa doo bëree gala dafa am te tey lambu gala la te gala gi tey baatin képp lu baatin yaay daal. gis nga ni jàpp na kenn. gala ko kenn waaye baatin ba. mu laay laay rek sa dernier ba. waaw loolu maa la ko wax. maa lay jaajëfal. combat mënoo cee wax. waa ci lan ngay yow. saa yi dégg naa yaa ngi ruuma ndaat lu garaaw Assane yaa garaaw. <laughs> wuli moom nee na dootoo ko dëggalal. loolu saa yoo ko dëggalee mu daa juum rek waaye li ko jàppale ak li ko fal ci laa bokk de. Wolof Njaay nee boo fàtte li fal a jëm. sama waay la nag ku baax la sama xarita combat yi ma jox combat yu baax ma jox muy armée ak euh, Diène Kaïré wax dëggu si yoo xam ne. mbalak mais duñ comprendre. damay mbalak comprendre moom sama waay la. moom la gën a jox combat yu baax. moom ma ko jox muy Diène Kaïré ak armée yooyu. su ma ci daaloon rek dem naa bu yàgg. waaw sama waay ma yàlla la benn. asal sama la kay waaw jox ma. yaa ngi Albouri gars yi bëgg nañ ko yaa ngi Albouri gars yi bëgg nañ ko. Albouri de Albouri dof bi eh. mais Assane. neex. diggante Cheikh Super Jamono. ak xale bee di booy ah. Cheikh Super Jamono booy say. taxaw na. non non kañ nga ko fas diggante Mbaye ci laa koy def diggante carrière malam ñaan carrière ak euh, njambaan ci laa koy def Touba Couta malam ñaani ci laa koy def Iba benn jour incha allah. parce que Iba moom yaa xam. waaw dañoo dañ fay defaat leneen ak beneen combat journée espoir boo xam ne suñ la répétalee boo yi taxaw da nga naan loolu mënul ne. kon da ngay delloo njukkal Iba Mar. <laughs> ndeysaan yow man tey laa la bàyyi. jiili naka mu non du ji ah, dóor lay mujjee dóor du daanu wala. waaw wala mu bàyyi. dóor ba mu bàyyi laa la wax wala ñu dóor ko mu ne law dafa door ba mu bàyyi moom CNC nee na baax na. da ko doon dóor ba mu dee si biir terrain bi. kii doful day dof dof nee naa tey mu wér. kii sànq fukki at yaa ko fan. mu ne a la ngeen ah. Alboury fan la jëm. grand combat rek incha allah. grand combat kii mooy coach sam. grand combat grand combat moom fi mu toll nii wax moom. ah eh, kii sama kii sama lépp la. <laughs> kii man dong maa ko mën a wax. mais loolu daal yow di la rafetlu quoi di gërëm di xam ne lu ma la wax du deñ ji incha allah. Mmh. ci Reug Reug eh. ay waay waay waay waay li doon ay waay loo doon bañ mu xew wala mu yegg si bul ko appal bés waay ay bu ñu ne woon xel mi dem ci guy gi ak Reug Reug ay waay làmb ja ñëw na nag guy gee ngi nii ci diggi géew bi Reug Reug ngi nii ci diggi géew bi arbitre bi di seet guy gi arbitre bi di seet Reug Reug ndeysaan arbitre beeg leen seet ndeysaan arbitre baa ngi ñaari mbëri xool nañu Reug Reug ba pare Reug Reug ngay étiré ma ngay étiré guy gi am na lu ñu koy jox wala déet am na lu mu seq protège dent guy gi soxna protège dent ndeysaan guy gi sax na protège dent ba guy gi rëg rëg ñaari mbër yaa ngi ci digg géew bi guy gi rëg rëg ñu ngi ci digg géew bi ñoom ñaari xale yi digg géew bi actuellement arbitre bi xool nag rëg rëg ba nopp guy gi ba pare arbitre bi ngi waaj a sifflé Ousseynou Diop waaw waaw ñu ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan jaaraama GFM entertainment jërëjëf groupe Futur Média ndeysaan lalla arbitre bi am na lu muy wax ñoom ñaari mbëri ku ci nekk daa bëgg a boot ci mikaayam guy gi daa bëgg wan ci mikaayam ginnaaw rëg-rëg bëgg a mu wan ci mikaayam ginnaaw waaye arbitre bi ñoom ñaar nee na leen règlement bi lii la nangu règlement bi lii la bañ code sifflet moo leen boole waaye code sifflet boobu moo leen tàqale joxale leen loxo joxante leen loxo ngir guy rëg arrière na waaw guy gi arrière na guy gi daa fàttee jat wala déet guy gi dina jat wala du jat ah dañ leen xool nañ leen xool arbitre bi bu ko laajee guy gi jat guy gi jat na ma ngay reculer guy gi ma ngay reculer Reug Reug ngi daw di ñëw guy gi def na sortie délibérée guy gi def na sortie guy gi def na sortie arrière na ma ngay léemu Reug Reug nga koy xaar arrière na hey guy gi hey rëg guy gi jat Adama fàttawu ko laay xamoon naa ko ndox du bàyyi yoonam ma jat ma ngay jat ma ngay jat ma jat ma jat ma jat nangu na poftan bi diw ko ci yaram jat moom guy gi rëg doon na poftan hey nee na public bi jóg leen nee guy gi nee na jug leen eh làmb ja Reug Reug guy gi daa am doo wax tay ma yemale ko nee na tay ma yemale cey guy gi am na lu mu seex am na lu mu seex moom guy gi. waa déet waay guy gi lii mu def moom lan moo ci mën a fekk ah ndeysaan guy gi bàyyi na ba arbitre bi sifflé mu génn nekk ci ay débat débam lamb lépp tegtal la arbitre bi nee na ko pare nga guy gi nee na waaw combat bu nar a gaaw ngeen gis mbokk yi ku xef doo gis jël bi nar naa gaaw avertissement guy gi sortie de libéré am na benn avertissement daysa arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 20 février 2022 arène nationale journée GFM entertainment rëg-rëg ngeen jàkkaar lool guy gi moo lay won ginnaaw rëg-rëg ikiti caaray géej guy gi ékiri suñu papa Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi il est 19 heures 44 minutes ndaysaan maa ngi nuyu sama xarit bo maam Abdou Borom France xam naa ni gisuma la waaye sa xel mi yëpp a ngi fii ci làmb ji Borom Sene Pavage maa ngi lay bége bu baax ndaysaan sama xel dem na si sant yàlla mu baax mi sama xarit bi ndaysaan yàlla na sa jàmm yàgg sama xel dem na ci sëriñ Mor. moom it sama xarit la yàlla na sa jàmm yàgg ndaysaan sama xel dem na ci la grand saltige caajaay Cheikh Bamba général ku baax la waaye mbëri ba tey ñoom ñaar ku ne maye na distance waaye sama xel dem na tey ci le grand cadreur le cadreur des cadreurs muy Adama lu mu cadré wul baaxul sama xarit bi ndaysaan nangoo liggéey am jom bokk ci réew mi lépp lu ngeen gis Wassare Adama la ndeysaan cadrage bu jaar yoon a ci doy moom ay nawleem yi mu fa nekkal ndeysaan ma leen di bégee xel dem na ci États-Unis may bégee bu baaxa baax le grand artiste Babou Presse sama xel a ngi ci yow ak soxnaam Dalian <laughs> ndeysaan di bégee famille bi sama xel dem na oh lamb ji mu ngi bëgg a am Reug Reug toog na ci tànk yi jox guy gi cër ku nekk taxaw na fi mu taxaw arbitre bi àtte na Reug Reug nga xool supporter yi guy gi taxaw na rek ndeysaan arbitre bi soufflé waat na Reug Reug tànk bi taxaw moom Reug Reug guy gi taxaw rek guy gi neewoon na ma bàyyi jéele ma ne ko waaw mu ne ma dinaa ko may deux su ñëwul aa ah. ma ne ko bu ñëwul mu ne ma aa ah. ma ñëw rëg rëg ñëwul lan moo nar a xew guy gi day dem wala loolu stratégie la wala dañ doon wax rek ñoom ñaar wala waxi signature contrat la ndeysaan sama xel dem ñër ci Zeus borom Brésil sama xarit bi yàlla na sa jàmm yàgg Seri Fatick ndaysaan xale yaa ngi noonu ndaysaan ñu taxaw Reug Reug taxaw na rek Gouye Gui nee na ko kaay Reug Reug taxaw na rek nangu sàqi paa ñëw ci Gouye Gui Gouye Gui nangu sàqi paa ñëw ci Reug Reug sama xel dem na ci Balla Gaye Bombardier nii la deme waaye combat bi waaw waaw arbitre bi day àtte arbitre bi day àtte ah ah ah ndànk ndànk ndànk ndànk na ko bëre leen waaye arbitre bi bu teelee joxe avertissement ndax guy gi am na avertissement bu njëkk sorti délibéré amaatee avertissement moom rëg rëg guy gi rëg rëg dox na ci koom léemu na guy gi ngi arrière rëg rëg ngi dox ci koom guy gi rëg rëg lan moo nar a xew rëg rëg dóor na guy gi rëg rëg rëg ci tànk yi la jëm wala guy gi rëg rëg guy gi day xeex wala déet jàppante nañ baaraam lu nar a xew ñu ngi jaayante doole guy gi dóor na guy gi dóor na guy gi rëg rëg Reug Reug door na maa door mu daanu du am mbaa du dañoo nar a xeex ñoom ñaari xale yi Reug Reug door na Reug Reug door na Reug Reug door guy gi jàpp na Reug Reug jàpp na Reug Reug jàpp na jàpp na sol na ko da koo nar a plaqué wala déet guy gee ngi génne loxo bi guy gee ngi door ci suuf guy gee ngi door Reug Reug caxabal na ko daan na ko Reug Reug daan na guy gi Reug guy gi gi gaañu na ci zone wala déet gaañu na ci zone zone bi déplacé wu na Reug Reug daan na Gouye Gui eh Reug